ensuite sur la dissolution euh, de la supposée man je dis sax cette prétendue mais am na dissolution a même plus le droit de vous inviter sur les ah, plateaux non loolu ay waxi <laughs> caaxaan dans cette affaire la lecture politique man je dis c'est une diversion parce que Pastef n'est jamais allé mhm. dem élection. dëgg xamuñu loolu Pastef n'a jamais participé à une élection. Ndawi askan wi en président 2022 Yewwi effectivement. Mhm. donc ay affaire de parti yooyu le monde a dépassé ça moo tax moo tax ma la léegi moo tax ma la gis ay Macky Sall yi àdduna da leen dépassé te xamuñu ko en réalité. est-ce que vous comprenez ils sont out moo tax ils doivent céder le témoin dans la paix dem seen yoon sur le plan c' est un décret un décret c' un acte réglementaire. Mhm. et puis d' cet acte réglementaire là c' un acte réglementaire qui concerne un parti donc ouais. individuel. Mhm. normalement dañu ko war a parce que parce que pour que l' soit exécutoire il faut que l' soit notifié mais malheureusement l' n'a pas fait l'objet d'une notification. te yow ma yow gis nga décret bi. pourtant ils ont commencé. mais est ce que gis nga décret bi ci mais non non décret bi est ce que gis nga ko man gis j'ai pas décret non da la. l' intérieur. décret personnel la bi normalement décret bi suñ ko génnee dañ ko war a dem fekk Ousmane Sonko prison signifié ko ko. Mhm. à de ce moment là décret bi mën na nekk mais loolu yoon may na ko aussi mu def un recours. Mhm. y a suprême qui qui joue le rôle du conseil d'État en France. mën nañu jël def un recours pour excès de pouvoir contre ce décret là te suñ ko defee parce que pour pour entraîner la dissolution d'un parti dafa am dafa am ay préalable dafa am ay cause dafa am ay mm-hmm. condition la première condition il faut que cette partie là soit condamnée. Mm-hmm. mais le passé n'a jamais été condamné. c'est n'a jamais été condamné donc suñu ñu waxee ne dañoo dissoudre Pastef et puis li ma si gën a jaaxal. des gendarmes ou des policiers dem si siège bi tegg ay photo mais non non mais c'est grave mais on dans un état de droit mm-hmm. man je dis que ces policiers et ces gendarmes d'accord d'accord ces policiers et ces gendarmes c'est des vaillants fonctionnaires mm-hmm. je les respecte mais mais mais mais mais quand la joxee un ordre manifestement illégal il ne faut pas exécuter ça parce que soo ko exécuté tamit mënuñu la dara parce que loi loolu moo le code pénal a prévu mm-hmm. euh, ki suñu la joxee ndigal mu leer ndigal bii dafay violer loi wala dafay violer constitution yoon may na la nga bañ donc ñoom su ñu leen waxee dem leen tëj euh, siège u parti wala dem leen nangu seen ay chaise je salue la députée Daba Soñane qui est à Dara Moussi mm hier pour me dire que dañ fa ñëw nangu seen ay chaise nangu seen ay matériel de sonorisation donc loolu dafa ñaaw dafa ñaaw dans une démocratie loolu dafa ñaaw gis nga pour en pour pour pour entrer en voie de condamnation contre une partie vers sa dissolution mm-hmm. il faut avoir une décision de justice malheureusement on a aucune décision de justice mais loolu c'est une diversion. la une diversion qui ne nous ébranle pas. ñun ah, on est notre chemin damay la ñun on est notre chemin. et incha allah su neexee la rien ne nous empêchera euh, d'atteindre notre objectif et d'ailleurs tout à l'heure je disais ñun on a déjà atteint notre objectif tout le Sénégal xam nañu kan mooy Pastef. tout le mhm. Sénégal xam nañu kan mooy le président Ousmane mhm. Sonko.